xaaral ma ñëw nag tey pour am um, introduce leen Betty Sleep Care balaa ñoo dem si tooga bi xam naa du ñàkk yéen ñëpp gis ngeen ne Betty dafa am lip care brand so macha ñu ngi nii toog pour am support pour ñu support ko 100 percent macha allah ko gis ngeen mu ngi nii am lip care brand am bi am na couple of items macha so gis ngeen fii ñu ngi am like a gift box set bi lu moo am mooy dina am am lip care am products am yëpp mooy skin care band bi na am lip therapy bi dina am lip scrub bi dina am chapstick bi dina am lip gloss bi ba pare dina am am uh, am lip scrubbing tool bi as well dina fa nekk pour looy scrubber sa lip si moo nekk noonu ba pare tamit dina am tamit lip mask bi ba pare tamit dinañ ko customize according to your comme gis ngeen order yi dem so am nañu order pour seen doom yi seen birthday la am ñoo xam ne tamit dañ order rek pour dañ bëgg a jox seen doom yi gift so dañ ko dee am customize according to yow comme sa tur jox ñu sa tur yi doom ñu customize ko ba pare itam ñu defal la like sweet treat pour wax la jërëjëf si macha allah li ko order parce que affaire xale la waaye xale mun na ko use mag tam daf ko use as well when it comes to the scrub ak lip gloss and everything yëpp daal is xale ak mag yi mun na ko use so gis ngeen box bi mu ngi nii moom lañ defar nii ba pare gis ngeen ñu ngi ko defar package nañ ko ba pare def ko si suñ ba ku nekk ñu dañ ko seen true ak GP mu dem all the way to Gambia ba Gambia su ko defee location mu nekka dinañ kooku noon dina kool ñëpp su ko defee ñu xam ne dañ order ñu jël si ko ba am nañ bu ndaw bi boobu noonu bu ndaw bi moom lips scrub la am am am lip therapy bi pink lip therapy bi am looy scraper sa lips yi ah, waaw bu ndaw bi moom loolu la am nekkul like a gift set so it's up to you fekkee ne sa dom dafa am birthday wala nga just a jox sa gift rek or something wala dal yena a xam daal wala su da nga try lip set bi rek try lip set bi nga xam ne amut ci yeah so lii nii lañ go mane ne indi naa suma channel bi ah, ma ne xaaral waaye xam ne gis ngeen ko already waaye ma ne ma wat ko introduce ko di leen wax ne lii am gaal si seen little business bi nga moom laa leen am setal aside tamit as well on the side pour su ko defee ñoom tam ñu ñu ma mun la ñoo jàppale ñoom tamit nga gis ne dinañ si mun a yëngu lool lool lool waaye nag maa si dee sax anyway waaye nag wax dëgg na yàlla bétti daf day def wel moo zénaam ñoo ma dee jàppale bu baax soo leen wax ne jërë ngeen jëf soo leen buggee order mun ngeen ñoo call su ko defee ngeen place seen order si is very stretchy laa ko waxee xale mun na ko use tam mun na ko use ba pare ah, mun nga ko use pour skin nga ko tamit sooy tëdda Wala mo nga ko si yes so am not pink am na tamit black so gis ngeen is it's very very comfortable as well Do snatch and noppa yeah Wa hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi, uh, everyone. Hope you all are doing really well. i Um, man Lawat Home Cooking with Mary Bashir. Hello, everyone. Welcome back to another um, home cooking tutorial um, uh, if you're new here please don't forget to subscribe and then turn on the notification bell so it can notify you when a new video is uploaded um yeen ñëpp welcome back to another um, um video su fekkee ne yaa ngi just ñëw join suñ channel bi please mun nga subscribe ba pare nga turn on notification bell bi nga xam ne suñ dugalee video daf laa notify so yéen tey nag macha allah gaa gis ngeen dama am eewu rek xam nga léeg-léeg nga am yenn recipe yoo xam ne musu musuloo koo tooga sax ceebi keccax musuma koo tooga waaye tey dama ne xaaral ma ñëw try ko dama ko daan lekk gaa mi te xam ngeen ceebi keccax dafa neex dafa neex macha allah so tey dama xëy su ma xel nekk sa pare tamit suma bena harit gambe Gambie doon jay food stuff men xaaral ma jinda ko mom tam su ko ma indi ko ci channel bi machallah moma jay couple of food stuff wax dik neex yalla parce am ci bu set bi gis ngén machallah allah barewul yah mom soko xojé rek gis ngén rek su ko defee dañ ko xoj yah bi yah yi ko gina so mu ngi ni ma am ni tamit suma ñébé ñébé bi mom, dama ko wara xoj as well dama si bëgg a sànni muscles as well lu lu lu lu bari lu em rek ma am fii ingredients yi nga xam ne moom mooy loolu am suma bu xonq laa nekk am tomato paste and then this is am um, tomato chops ñu am suñ kaana bu di just ko bonnet sweet pepper jalapenos lii jaxatu la gis ngeen moom moo ma ko jaay as well kam ngeen lii lii jaxatu Gambia la moom ma ko jaay ba pare tamit ñu am suñ carottes carottes sax mu tax ma génne benn sax de mu am supame as well parce que xale duñ ko lekka so dama toggalu em rek parce que dafa bari so lu em rek pour xëy na man ak chéri boy waaw ma am bi dama ko walaale ak moom am moom lañ am fii nii ma indil leen ko as well so soo leen bëggee jënd kecax wala food stuff jaxatu mu am mbaxal am na kong am na diwtiir am na am na araw am na lifin naka sifa sifa bu wow bi am na daal couple of business am naka am bagas so dina fi attaaj nombam bi mën ngeen ko kool su ko defé tamit yeah so mu go fu nekk ma ngi ni léegi nak ñu ñew door force of all ñu ñew xoj suñ am def ko ko ko after that ñu xooj ko dinaa toogal lu nekk sax xam nga kexe kenn kecax yo xoojal rek ba fekkee ne fàtte mu ngey jaay li fi am géej ak yeet as well géej ak yeet tamit bu ne mom lu haram ni won la leen ko defé tamit do muy do soo mu go Mariama Fati Mariama Fati ceeb bi ke kecax be ngi ni de na ni mom soko setan di nga lay ka bu suur nga so nga so ko setan suma jikki bi kay mo wax len de su su ma ko seenee recette yi waaw ma génne waat lii su ma ko seenee lii nga nekk ni rahas xaaral ma <laughs> teg ma xooj wax ba pere gi nga suma ko seenee recette bi su ma bi nu amé fayda xamné na fu nekk sori na loolu du am dafa wax ne mari ma ne ko na ma xaaral ma ba sour suma ma ba sour duma ma su ko defee ma mun ko ma mun a seetaan du xiif mu seetaan suma recette bi nu amé fayda waaye wala ya ne Faty bi mom wóox bi mom su eboo nga lekk ba sour su eboo bu lekk ba sour mo bi mom <laughs> di mom bi mom dina mom. laal moom dama ko xooj ak ndox bu tanga man haram xoj ko ak ndox tanga mu gëna gëné indi fi nii yëpp rey ko so ndox bu tàng laa ko xoojee nii waaw. koŋ bi laa gis ma fridge bi rek gis ko mu foog naa ne koŋ bi tamit moom moo ko jaay so mu ngi jaay koŋ juice fresh gis bi nu mu fresh so mu ne xaaral a ngi fàttali koo dog su ma ko dogee ba mu ma seey naa ko mën a fry ay waay su ma fryee comme tëf tëf tëf. la moy nekkee def teuf ay suñu naan fray kongaam bi wa yalla baxna nañ dem rek <laughs> li na saf de yéen li mu ngeen mujjee bu a saf yeen so suma gaay yi fum nekk na gis ngeen xoj naa ko ba mu kajaf mu ngi kajaf ba so man don try pour génne yax yu sew yi ngeen bari wul yah nak nonu to yenen keccax yi ñu dee baree yax mom nga so pare soo ko frayé sax yu yax yu bari dina lifin bayu nonu yax wax dëgg na yàlla am na yeneen kacax yo xam mom dafa bari yah ba doko sax mun doko lifin dig yah yi waye bi ma pare tam dijaneñ jën yi dijaneñ so ma ngi teg sama ñebe bi fi ni maa ngi koo baxal boor pour nga na gënal a lifin so léegi ñu ngi ni teg suñu sigeer dama ñëw na def ci diw kon na waw na so ma def diw diw so diw ma def ni li diw bu ma yuusoon la duma dee suma ma diw ni duma ko dee dama ko ko boor nga ko togaat mom la Eh, ceeb ya, bu em nag laay def guys ceeb bu em rek laa bëgg a def bëgg pour mu waaw bu em bu saf soo <laughs> gis ngeen suma koŋ bee ngi nii raxas naa ko mu set ak ndox bam set ma am ni tam suma géeja kong géeja koŋ bi tamit moom si moom laa ya? ko jëlee ak tamit yiit mu ngi noonu ha nañ dem rek nañ dem rek <laughs> nañ dem rek waaye <laughs> so luñ am si blender bi ñu ngi am fii am spring onion one um, half spring on um, half um, onion of re red onion half um, white onions ba pare tamit ñu am jalapenos garlic bu doy ñu am tamit ma def fa parsley bu desson ya foog na lu rek la fa def ande lu ma fa suy ko pare defaguma fa suy ko parce que ak na bu di ja tout bi bi tangana dama bu ko ñika fry suma tangana na tangu hey xëy waaye man bika bugan bika fry suma jox parce que yoos laa dama yoos sax duma ko fry ni day rek su dee dee ko bari dama ko dee dama ko dee oven bi waaye bi comme bari ini apa? nga kau satu ko faax guys gini naa am waaye dama nekk di am two mind mau fry kong bi ndax ma fry Pas kita tëf tëf sih buat lay bañ Okay, bismillah. Tengok saya dek. Ketchup. Ayuh, direct live fry. Saya udah kali ini abisin sama fry harusnya. Terus aku abisin sama. Untuk fry, bagi senang sinar aja gini. Ini lah. Ini dimasukin um, kecap ini, fry ini coba mau. Ini ini semua roh beladak Ini akan kos tuh terus kita yang mau magin di Marok. so mana kita kita ya? masak eh, ini Ini apa namanya mantap Ini di karena ini mana ek na niru na Kita ni mo dito so man fry fry ba bena di la fry fry na wala pasti mabanyo mo gusto kaya dapat après parce que mënu ma dee lekk su ma dee lekk ñaar ma def xaar ma ne la nangka. laa ceeb su ko nga at ngay baax nanka nanka ci sew yee ngay ñor nanka nanka tamit su ma paree def nanka seppi si iril gis ngeen maa ya. ngi nah, nii def suma chicken yaasa lay defar lay defar xale yi parce que xam ngeen kan. benn cin bi dafa am yax te bugguma rek bugguma koo risqué ko defee mooy loolu yax moom si lifin suuf man xaaral ma toogal leen ñoom chicken yaasa gis ngeen maa ko season nii ba mu dindi so dama ko jëkka steam nga maa ko steam nii léegi su ma ko steamee pare ma paree nag dina duma leen ko wan waaw ba focus leen ci benn cin bi rek waaw <laughs> dama la ñëw cap capal nii rek parce que dama ko cuisine pare su ma xam nga ne su ma su ma lifin bi laa ko cuisiner dipping sauce bi tey dipping sauce bi laa jël parce que dipping sauce bi anyway du pour si du pour lifin sa pour cuisine la as tamit moom baay propose de pour soo toggee ba pare nga dip comme nañ ne naan lu sauce rek waaye xam nga tam mën nga koo use tam pour cuisine as well waaw nit mun naa jël la seti cuisine xëy mu jeexal yëpp am ci biir soos bi mu am ko fa soo ba léegi you can still use it nga season gis nga moom use ni season suñu ginaar bi gis ngeen naka la ko safee roofuma ko nag parce que tam dama bañ mu am kaani torop so yeer so ñu ko stimulé suñu lii moom mu ngi nii moom tamit maa ngi baam ñëw suub si ñu damaa ñëw seppi soo léegi nag seppi naa ko pare suma bi mu ngi nii def naa ko sama microwave bi Bismillah. ya, mira mo ko mos ko mo nora bu. Mo mo lifin understand. Pero tem ni ma ko no tanga bitan tam na wañi na xara mo tuuti. Legi nak yep saf na na ko So pare bëgg naa ko mu àndal wes soo léegi nag ñu toog mën naa des na tuuti waaye yéen a ngi <laughs> lu ma des ci keccax bi mooy comme naka laa leen ko waxee bi bariwul boo ma ne amul yax de waaye bariwul yax yeah xam nga su ko defee boobu at least dina halal itu dañ tuuti tadi lekk dañ si bàyyi rek waaye wux suñ père ba kem gi rek xoos ah anyway ñu débat ko tuuti bàyyi mu joxaat ñu muñ gën a ñor waa suma gars yi bismillah oh. tey moom maa nga Gambia waaw am na ko bëggoon a décorer tal di waaye mu ne xaar ma yekk rek comme que su ko xale yi de sax ñu ne ñoom tamit dañ see lekkate te xoolal maa ngi leen doon avoy dal lifin bi de waaye xoolal ñëw nañ mos ko rek ñu ne ñoom tamit dañoo lekk may leen ne mungu ko nañ leen yàkka bari ñu dem lekk te maa ngi leen toggal eh, ci kër lifin de yaasa ma in case xëy nañu li am yax wala something o oh, Alen leen ma kay si kau. ah waaye day day naaw di xaar leen ma yàkka ma ñëwaat waaw mu ngoo gaay suñ ceeb bee ngi nii mu ne ko suñ ceebi kecax bi bi mani ma so maa ngi nii tamit vegetables as well at least um some mixed veg la mom laa dugal si microwave bi Doga ko so mungkin ni vegetables mom dan ko Um, um lifin fi luñ tok rek dinañ def vegetable aside pour rek su ko defé nga xamné duñ manki suñu dé yi xamna vegetable mu ngi fi tamit waye yi ni tamit dafa am solo especially green vegetable ci dañ baax so mu ngi kané bi ni tamit ma am ko mu ngi ni li maa ko def pour home use la kané bi mu ngi ni pour home use la yes so mom tamit su paree moom laay sauce ana kudu sax sauce si kane. bi gis ngeen kaane bi parce que kuma day ci ma xarit bu dee defar kaane mom gejna na am kaane te man fu mu nekk min na kaane kaan min bo xam ne mënatuma xaw ni problème bi ma jambal suma bop <laughs> wa nak neex na de bi sa togu mako dama ko pikul recipe bi recipe bi mu ngi tiktok bi recipe kaane bi so guys li la won tay kon ma bàyyi suko su nak defee ah, ma ah kalen len sen wala hmm amu leen morom jërë ngeen jëf